alors mbokk téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyu alors ñu ngi ci koñu Boy Niang si guddi gi nii vayu combat bi ñëw wane leen koñ di ni mu demee ak ni gars di waajalee seen événement wu suba maa ngi taxaw ak chef de quartier bi nag euh, salaamaaleykum. Euh, Yatma sama grand Yatma Wade maa ngi siyaar. waaw maa ngi lay gërëm di leen sant di lay di rafetlu aussi seen présence si les pépinières euh, di préparer comme ni ko ni nga ko waxee sunu combat bi nga xamante ni sunu mbër Boy Niang moom la am suba di ko ñaanal yàlla may ko si ndam. parce que préparé na ko si fulla ak fayda. waaw Ibrahima Ndiaye seen waay di bëri suba combat bu bu mag nan ngeen ko gisee. waaw xanaa pare lépp rek bilaay xam nga làmb moom booy dem da ngay pare sa lépp bilaay di ko ñaanal yàlla mbay ko ndam lu rëy ndax booy bu baax la booy bu yaru la yàgg nañ vraiment musuma def lu ma naqari musuma ko wax. kon daal bilaay di ñaanal moom ndam. waaw dañ jënd. bii booy ñaa ko jar. moo ko jar bu mag de. ah ñun ndam rek incha ragaluñ lan di wax Lac de Guiers na bu bu subaa incha allah na dëggal boppam rek. waa dëggal boppam te bañ a daw. bañ koo def te bañ a taxaw. te bañ a daw bañ koo def match moom la de Guiers. de Guiers loolu rek mooy yàq combat wam. match nul la ñuy bañ. waaw bu mu yàq sunu combat daal. na doole moo ñoo ko man dañuy jaasi kawam. non kooku il faut ñu tànk si kaasu fonde bi jox ko. billaahi. ñun pare nañ. pare yàlla may ñu ndam incha allah ñu ñëw féete ko ci fair bu jeex na. voilà mbokk yi gis ngeen koñ bi koñ bi commencé na neex ah jigéen yaa ngi jaay salaamaaleykum waa kër la waa kër booy ñaay maa ngi siyaar. ñoo ngi la koy delloo. da ngeen di veillé nii quoi yéen. ah dañuy veillé dañuy jaay xale yi ne xam nga ne heure bi xale yi dañuy xiif waaw. di wax Boy Niang. yaru baax am respe am respect di gone gu baax xale bu am respect xale bu am yar xam ay bàjjanam ak ay ndeyam loolu laa xam. mu war jëm suba ci komba bu mag diggante mag la degeer. di ko ñaanal yàlla rek mu daan. voilà le maire Issa Diop moom moo ko defaral ki nga xamante ne moom mooy Boy Niang. grand bi maa ngi Eh, bëgg waay. mais combat mat na de. yaa na ah. yaa na. alors combat bi nekk combat boo xamante ne soxal na leen gis nañ ne waajtaay bi koñ bi fees na dell. mais ñun lii bu ñu soxal xob lu ñu soxal combat bi ñu ko gën a bëgg waaj. yéen ko bëgg a gën a bëgg la jege. kër Serigne Saliou Mbacke na maam affaire ñoo ko gën a bëgg. allo. papa maa ngi seet. man Joola de. aw a Joola. yaa Joola eh. lan nga lan nga mën Boy Niang war a ak Lac voilà nje nje folowteɓe le tade ɗi boyña jeni pour le pour casamance mi joɓe tade ɓe juke boyña kayga ko wala ɗum folo ni jikkoyo jikkoyo kono mi i jikkoyomo eno eh i pour casamance mi joɓe sere ko dabara abo sombo matar jeeju sere ma si jàmm bo mais sere nu mu demee noonu dafa mel ni euh, pression bee bari de waaw pression bee bari di ñaan yàlla ndam rek ah sa waay mi ngi mi ngi pare waaw. mu ngi relax. waaw ah, mi ngi relax. mu ngi sangu mu ngi relax. mi ngi mi ngi pare di relax. Pikine nan la mobiliser woo. Pikine a ngi ci ginnaawam di ñaan yàlla ndam rek ci kàttanu yàlla yàlla ñu yàlla may ndam. maa ngi delloo ziare. ndax moom. lu pare nañ ba pare. bu jeexee rek jeex na pare nañ. yàgg na. ani Boy mbër mu ci kaw di relax. di relax. yee day relax. Ah, Boy Niang relax waaye. this Ah, Boy ñaaw warut a la ak nga naan ma ay relax. non dañuy relax suba jot ñu dem daan ko ñu si waat. soxna si nga ne lu muy def day day. connecté dafay connecté wu si WhatsApp bi la ne di wax ak Lac de Guiers. eh, eh dafa ni dafa ma wax ak Boy Niang eh Boy Niang eh yow da ngay bëre ak di connecté wala ji nekk ay WhatsApp waa yow sama gàllin naan ma da nga nekk ci WhatsApp bi alors nga ne mu ngi ci WhatsApp bi. mu ngi si whatsapp bi di connecté wu di enjoy laat de Guiers faale wuñ ko dañ koy daan jox ko portefeuille mu naan curux curux la ñu wax. curux curux waaw. garabaay ziar. Ah, baax. trop trop sax. alors xamante ne yéen a dëkk ci euh, kër gi ngeen nekk ak Boy Niang bu gisee mbooloo mii nan la leen di def. waaye sant mu ngi ci jàmm mu ngi fee tëdd di def ay ganaar yu baax ah, di waaw di wàcc suba. ñoose laa si def kili si ñoose. loolu kon la kot la bu kilisi ñoose. loolu kon la. gaynde xanaa da ngeen bëgg a perturber gars yi wala di ngeen bëgg a waaxu gars yi. dégg ma li nga kilisi ñoose. gaynde loolu kon la suba nga koy xam kilisi ñoose bala ngeen ne day baax na wàcc ko man xoolal. oh Gane jaral wax du bëri sax. voilà mbokk yi Fall un des coachs de Boy Niang qui l'a préparé en France alors Souleymane bon bonsoir. bonsoir salaamaaleykum. dans quel état d'esprit euh, est Boy Niang actuellement. Boy Niang est dans un très bon a été très bien préparé comme je l'ai déjà dit. Boy Niang est en forme. On attend demain Inch'Allah. Quelle stratégie euh, allez-vous aborder demain? Ah, la stratégie, euh, je me, je préserve de, parler. Mais vous avez bien peaufiné. Oui, bien sûr, on a bien peaufiné oui. par rapport à l'acte de guerre, Vous, lui dites quoi, euh, l'acte de guerre Quel message euh, vous l'avez envoyé J'espère qu'il sera en forme, qu'il sera bien préparé aussi oui. et qu'on assistera à un joli combat demain. Hey, Maï La ilaha illallah Ali Baba Samba Koumanar, la pression monte, la tension monte. Wow. Si vous êtes cardiaque, prenez du sucre absolument. Wow. Boignan, le de De Gaulle, l'enfant de Pikine, Manganonou, la dégueule, l'enfant de Walo, oui. l'enfant de Guédiawaye, oui. Manganonou, Tchin Boundare Nier Boubaké Dali Kheng. Là, il a la samedi, oui. le 13. Esarara national de Pikine. Tchin Boundare Nier Boubaké Dali Kheng. Arbitre, arbitre, arbitre, Boy Niang sànni na gauche bi dal. la dager sànni na gauche bi dal. Ah. kurfañ yaa ngay mel ni mbàccum a are yaa ngay naaw. téere yaa ngay naaw. Boy Niang dina ko rey dina ko rey. ña ngay xeex Boy Niang door na léegi. la dager door na léegi. ña ngay xeex attention. attention Boy Niang jàpp na ko. Boy Niang sañoxal na ko. Boy Niang faqal na ko. añ na ko.